daal di ñëwaat ngir àggale li nga xam ne mooy yeewu leen ex nag je vous rappelle mi ngi xaarandi ba tey rek euh, ay ganam bu fekkee ñëwuñu rek ñu pëttaxal jëm ci li nga xam ne mooy waaw bu euh, ñëwul am naa benn vidéo bu ndaw boo xamante ne nañ ko mën a def jëmale ko ci jaara wax tuuti euh, xale bu jigéen ñu dem xool yi vidéo bi ñëwaat I know that I just wanted to sing because every time when I sing it, I'm good. Even I'm like sad or sick or I have a problem, if I sing, I forget everything. So I know that I have to sing. I have to sing. in France, but I grew up in Dakar in Senegal. The first time when I performed, I think I was six years old. It was so very good for me. That day, I thought that I would be a singer. I was uh, living with a cousin of my mom because my mom was traveling a lot. It was uh, not very good because I'm thinking about the time spending without my mom. It was not easy for me because it's not easy when you are younger and you live without your mom and your dad. About my dad, I, I don't have an idea. I see him like two or three times in my life, so I don't know anything about him. I don't know her opinions about what I do or what I want to do, so I was singing just for me because it's made me feel that I'm another person, that I can travel without going to airport or being on the plane. When I was eight years old, I started to live with my mom, but they didn't want me to sing when I was younger. So it was like a little bit difficult. I was singing just for me in my room. it's not very very easy if you want to be a singer or dancer She said me that in my family everybody go to school. She want me to be a president or a minister. Even I have good marks at school, I didn't want to be a president or a minister. But after I was singing every time, singing every time, in 2015 she accepted me to go to the contest. my mom started to change her opinion about my singing because I tried for four years and she doesn't want me to win the contest. But when she let me being in the competition, I won it. David says All Star. Uh, Mandana! I was so proud of me. The first time Hori sent the video, she asked me if you are ready because I think that your life gonna be changed. And I said yes, and I said yes. I'm ready, I'm ready. Diara. I was so happy when Simon said me, we're gonna represent Africa. can open like Africa with the world. It can open Africa with Andrew, Africa with China. It's just amazing. I think that now United gonna be the best crew ever. I love Senegal because it's my country. I can bring a lot of culture in Now United because we had a lot of good things. ñu ko ci plateau bi wala falaale nga wax dafa mel na feeñ nañ de waaw now United uh, excited mu nekk nag 14 uh, la ñu ñoom ah. exactement nationalité yëpp euh, Amérique ak yëpp waaw. voilà Inde et tout ça. Japon ñi ngi fii ah, Ndakaaru. Sénégal mais liñ ci ma a jàng kat. Mhm. ci wàllu musique mooy il faut que ñu xamante ni musique boo bëggee doon star foog ñu def ñu tàbbal éducation ci yow yar. Mhm. ndax artiste am na fu muy toll bu la bu ñu rocciwul ay peet ci yow da naaw. Mm-hmm. parce que dimension bi ngay am la. foo tourné yow a yow yow yow donc bu nee dafa teel nekk ci xale. Mm-hmm. alors yii nag dafa baax ñu am parce que da lay jàngal wàcc. Mm-hmm. comment communiquer doo wax lu ëpp. bàyyi lii dindi lii. exactement loolu yëpp lenn rek lañ ci jublu. c'est pour manager le talent. parce que génie dafa dangereux. quand tu as un génie en toi. jeunes yi balaa moo génn. dana la def loo nu ne. nu ne dana la def loo ne dina la jànniloo ñu naan kii dafa dafa day jànni nit. Mhm. wala kii dafa lii wala kii dafa réew. Mhm. ça c' est le génie qui se mhm. manifeste. léegi pour nga maîtriser ko. nga mën ko dëxëñ ci toog ci. dëgg la loolu nag dana la ci yar. soit sa papa Michael Jackson bàyyi ma dëxëñ génie am. di ko duma tu vois ce que di di ko yenam boo jëlee wàllu Youssou Ndour c' était son père. papa boo di Youssou Ndour la papam il a veillé sur son génie mhm. et cetera donc star yu mag yëpp am na kenn ko veillé ci seen génie ba nga xamante ne nañ ko mën maîtriser mhm. ba xëj na du leen def loolu garaaw mhm. moom nag donc li école la boo xamante ne. Mhm. ba américain xam nañu ko muy boys band. Mhm. mooy groupe yoo xamante ne yu woy et tout ça mais ci biir li ci li ci graaw mhm. particularité mooy ku ne da nga am si jikko. ku ne jóge ci benn dëkk ku ne am ses réalités ak ses valeurs. gestion de groupe te dañu bari. 14 c'est lourd. mais pour te dire que bu ñuy wane ne Now United Now United. Euh, da ngay xam ne benn esprit lañ bëgg ba doo gis africain doo gis sénégalais dangay gis just rek. Euh, le talent. tu vois da nga gis euh, une nation. Mhm. now united moom mooy euh, ñëpp ñoo boole nañu. ñu mhm. bokk benn valeur bokk ay même philosophie. Mhm. comme ça ñu mën a voilà atteindre cet objectif. voilà donc loolu loolu je pense que ne c'est important ñu mën nga xam ne. maison de production loolu lay jariñ aussi. comme waa Prince Art. ni ñuy jëlee xale yi jël récupérer à bas âge. commencé leen di liggéey seen génie voilà bu ñu. parfois nga gis tàngoone xale boo xam ne day def dara dalay woo ci ginnaaw wax la exactement donc ngoone am na maîtrise u at nu temps mi mënti toll mu mën la yemale na lii bu ko defati wala lii defal lii parce que loolu da ngay éduquer waale en même temps en même temps parce que éduquer waale en même temps ah oui c'est pas évident surtout jeunes yi. yi ba pare nag. Euh, talent bu àndul ak talent kese kese yóbbutul mhm. kenn fenn. yóbbu non le talent il mu am mesure li nga xam ne moo ci mhm. ànd ah, dérivé yi. am direction mhm. artistique ah am euh, ñi yor euh, photographie communication. loolu da nga gis benn nit. minimum ay dix personnes di liggéey ci xale bu am dix ans. c'est quand même c'est c'est loolu xale bi. Ah, da ngay jàpp ne sa lourd. mais gis ne xale bi ah, ñoom ay ay mag lañu. yow nga nekk xale bu ndaw yow cundum gis booy génn dañ lay ibil buntu doo laal dara. <laughs> lépp na donc finalement bu bu ñu géré wu rek da ngay naaw. waaw kay sama mburu ma la. waaw mburu ma la waaw yow ku la war a ah, yow ku la war a summi di koy golo. <laughs> fekk bi ñu tegee sànq am na mburu yu fi jot a ruus. waaw waaw sànq dama xelu bi may wax. sentir naa nii tuuti mu <laughs> nekk ñaar. ma xam na lu ma manqué. mbaa du ngay gis ñaar <laughs> lépp ñaar. ay ay kaay ma wax la nag xiif kenn du ko tuddee sa doom. waaw dëgg la xiif du mbokk du xarit du sa mbokk jur doom tuddee ko xiif la. xiif rek li léegi de ma jël ma jël boppi mburu bi. dégg nga lii ma xam ne ma faxas ko <laughs> fajal faxas naa dool. ay ca ñu daal donc daal bu ñu ci gàttal. Euh, uh-huh. euh, donc ñu. Euh, seen petit parce que laaj ne nan la def ba mm. intégré. quand même seen ko gis avec une belle présentation de sa la labelu Ngoni Ndour. Mm-hmm. ñu introduire ko participer ñoom it ñu accompagner ko parce que liggéey nañu ci moom loo xamee ni bu demee ci compétition yi mag yooyu. Mm-hmm. dana dana ko mën a jël. Mm-hmm. donc je pense que ne dox nañ ko elle a vraiment outillé nañ ko jox nañ ko outillé. yi yëpp yàpp nañ ko yàpp nañu ko mhm. ba noppi tamit euh, man déglu naa xal yëpp way mhm. mais bokkul lim la nëppale hmm? ah non bokkul yal na ko yàlla la fa cat ndax ku nit ko ah, moom boo xelee léppam yaa catu mais bu ñëwee ci ngéwél nga ne fa la ma ne baa du day mbaar yëpp lay def mais bu ñëwee ci ngéwél nga ne foofu la man bu ñëwee parfois boo ñëwee ci ñoom seen dimension ñoom Rihanna ak yooyu ñoo nga ne xale bi loolu rek lay way tu vois ce que je veux dire donc malheureusement am na capacité boo xamee nii Euh, tel nañ ko déceler euh, ci seen petit gàlle commencé ko ci yar nag ba nga xamante ne xale bi dana mën a màgg gérer carrière am euh, ya a des moments où les gens disaient que oui elle répond beaucoup sur les réseaux sociaux tout ça bon après comme on dit gis naa ko benn kii muy mu ne fa di def ay délire am nag waaw waaw di parce que comme on dit c'est pas yombul nga nekk di compétir nekk mm-hmm. ci benn régistre di xeexal sa dëkk mm-hmm. moom ay détracteurs yu nekk ci ginnaaw pour bëgg la kërëb bon a un moment donné senti un peu truc waaw mu ne xaaral ma wax aussi loolu mën nañ ko ko may parce que euh, waaw mën nañ ko ko may parce que âge ba la mhm. et puis euh, c'est ciblé mhm. bu doon da ko doon wax en général mhm. ñu mën a comprendre mais c'est ciblé donc en matière de communication quand c'est ciblé mën nga comprendre ñi mu ciblé ñu tontu donc moom ay détracteur am la wax ne leen voilà man nii laa mel maa ngi ci lii maa ngi ci lii donc loolu dar new ci et c'est légitime parce que kun ko waxaloon ku ne nga défendre sa bopp en tout cas pour résumer ci talent bi mhm. Mame Diarra mooy une star est née mhm. moom la ñuy wax euh, aux États-Unis a new star is born voilà donc artiste juddu na nañu ko accompagner xam ne aujourd'hui mën na représenter le Sénégal waaw in English Mado nekk fii di ñu ko faram fàcceel di faram fàcceel di traduire Mado moo doon translator bi moo ko doon translate ah oui moo ñu doon traduire elle elle elle parle bien anglais et puis euh, et puis li ñu gën a neex aussi ci moom moom mooy euh, elle a pas ce complexe. mooy euh, bu nekk ay nawleem tu sens que ne. waaw waaw gëm sa bopp rek waaw leadership bi mi ngi ci moom ba pare. Mm-hmm. donc vraiment mu nekk xale boo xamante ne bëgg naa xale yëpp ñu roy ci moom. parce que tamit ñi nekk ci seen petit gàll bi ñoom it xëj na moom moo ci am chance dem. Mm-hmm. mais ñi ci nekk ñëpp aussi seen petit gàll xale yooyu ku ci taxaw wax bu ñu ne der. ah buñ ne der parfois damay waxtaan ak Ibou ba ci yàgg ma ne ko Ibou sérieusement li ma gis ci xale yi boo gisee sax seen ay mag amuñu ko ndax xale yi dañuy woy duñu fose ce qui est quand même extraordinaire duñu fose ñoom ñëpp am nañu nopp ba noppi discipline parce que euh, am na benn tournoi bi ñu doon def nii benn euh, camp euh, benn tournée bu ñu doon def mhm. ki ci doon aw ci ginnaaw wala da ngay gis ay xale yi ndaw ñoom ñooy aw ñooy aw donc allé yi c'est tellement boo ba nga xamante ne gis xale bi hmm. du harmoniser de aw rek réponse réponse réponse uh-huh. boo fa tegoon xëj na ki ko ëpp âge fop hmm. dana harmoniser ba ah. kii way moom ci boppam sax waaw parce que danaan wax nga dëgg de esprit bi ñu leen di dugal seen bopp exactement esprit de compétitivité bi dafa am xam ne fa lay yem te bu ñu paree da gis déjà euh, bu ñu éliminer kenn ci biir compétition bi ñeneen ñi dañ koy encourager loolu mooy esprit de groupe loolu mooy wane moom mooy forger xale ba xam ne ëllëg su demee ak fu mu mënti nekk rek dina mën a xam ne tey da ngay am suba doo am loolu c'est important ñu teel def ci base bi mhm. du euh, ñu mën a mhm. ci ci may tëjee rek donc euh, Prince Art mhm. donc euh, muy seen petit gàll nit ñi gën ci jàpp xam ne Euh, c'est une maison de production mhm. boo xam ne non seulement day divertir mhm. xale yi vacances bu jotee duñu dem ci wala ils s'ennuient pas et puis ku amul ku amul y a une moyenne bu ñuy laajte boo amul benn moyen bi tu participes pas tout simplement ci ci compétition dama koy sàcc parfois ñuy toog di ci waxtaan mais elle est tellement exigeante mhm. ci côté euh, amu ci kaf amu ci caaxaan amal talent di waay ba mel ni Michael Jackson boo jàngulee bu baax école du la jëkki ba pare beneen bi mooy nga déggal say waajur parce que ngoone du jël benn décision ngoone jël benn décision sans l'accord des parents moom loolu xale bi même bu ñëwee ne bëgg naa danaa la sa papa ak sa yaay moom exactement donc loolu dafa am solo nit ñi xam ko ba noppi tamit euh, aspect euh, divertissement bi nga xamante ne grande vacances xale yëpp ils s'ennuient parce que amatul yenn aire de jeu yi wala yenn espace yi donc bu amee seen petit gàlle xale yi da ngay gis seen bopp da nga koy yàqal non amatul bilaay ci temps yu yor nga sa bopp da nga mm-hmm. koy soxla na nga ca gaynde ak nag yëpp parc à nu dese képp ah, bu gaynde ne fëx ñëpp daw xale yi ñemewuñu foofu sax xam xale yi ñemewuñu fa ah, ñàkk pexe moo tax ñu fay géej gi à part géej gi te géej gi dix mètres am mooy bi ne fii IFAN 10 mètres am. waaw sa ah, xale bu ne da ngay daw jàpp ndax ci géej gi la dafa dafa manqué tuuti man je trouve. war nañu gën a am ay air de suñu xale yi. xam nga am ba kii jot. du compliqué wallaay te yaa ngi fàttaliku jamono ba ñuy nekk xale ay bayal dafa amoon. bayal bu ne da ngay mu ne yàmbalan mu ne yàmbalan af xale yi di ca foo ah may faj waay bilaay waay Ndakaaru na man Ndakaaru njaay daal safu may Ndakaaru jël jóob la waaw il faut nga am dégg dégg la laaj dégg dégg waaw booboo neexoon de xale yi doon jali koos wallaay di la jali koos luy jali koos ex la jali koos mooy jalikoos. mooy afro la woon. Ah, ah. Ah. waaw woon. waaw waaw yooyu xeet. jamonoy fer teg teggi non teg teggi jigéen ñi ko la def. ñu góor ñi fer mooy lan fer teg teggi mooy kii bi afro peñ. mooy peñ peñ à lissé peñ peñ à lissé peñ peñ sama ko doon tàbbal ci ci ci xal ba rek. wallaahi rek karaw ngay saxaar. karaw nga saxaar peñe défrisé ah, jamonoy ba large wallaay jël benn 10 francs 10 francs ceinture am boucle weñ ca tab ca ca bopp paddale fa <laughs> booba ndakaaru neex na ex ndaje bi wallaay bu doon dox da doon yëglu ndax cinéma am sax nit ñi dañu doon seetaani cinéma da doon am ñu ah laaw dafa doon am sabo waaye daal boo doon dox guddi da ngay yëglu ndax kooku ñaari xeetu sabo amoon na bu weñ amoon na bu yàq ex ci ndakaaru bu ne dëgg la waaye xale yi may wax waaye yaay wax bu neex googu xam nga ndakaaru dafa neexoon woon musique yi niñ daan dundeeg yooyu dafa am lu ma la ciy may ñu dem seetaani ki nga xamante ne ci ndakaaru gu njëkk googu la waa ñu may la ci ba pare daal di dellu ci waat parce que lii dafa neex waaw dafa neex te ñi toog di seetaan xam nañ loolu biti bi rek gis ngeen ko mooy wane ne ndakaaru comme ni ko ex doon waxee nee na ndakaaru bu njëkk galaay wax ndakaaru neexoon na xam nga Ismaïla Lo euh, bi temps amul ay technologie ay sample ay voix yu ay autotune xaw ma nuñ koy waxee bagage yu bëri yooyu voix la instrument ngay dégg muy tegu ñi xam dafa neexoon daal euh, ci gàttal boo mënul way doo way waaw ñoom dañu mbapat déggal li xale yi mbapatuñu dañoo mbapat xëy suba tee rek bëgg xam nga dafa am loo xamante ni man dañ koy déplorer uh-huh. ñii dañu am succès mm-hmm. de par le mérite mm-hmm. léegi xale yi dañu am succès non non non Pape dafa am dafa am lu mu gis balaa ngay eggal da ngay sàqami nee na mburu mi encore ex <laughs> nag mburu mi mi bëgg a gaañ yaa ngi bëgg a yàgg ak mburu ah. ma comprendre fa baaxul mais daal gis ngeen léegi xale yi léegi dañuy dañuy am léegi succès buzz moo leen di may succès may succès mhm. ñii lu lépp lu ñu am liggéey moo leen ko may donc mhm. mérite moo leen koy may dañ koy mérité mhm. donc léegi xale yi nag ku ci xew rek liggéeyul buzz la ko may donc ñii c'était ay mag ñoo ba pare dañ doon bind ay kat lañu woon waaw ñun ñëpp seen ay bind ñu yar ci li ñu waaw texte yu riche ñaar moom mooy dañ doon tukki di dem ay dëkk di tumuranke di jàng di gëstu instrument traditionnel yi d'abord mm-hmm, mm-hmm. gis nga ñii def nañu région Sénégal yi dem Gambie dem sous région bi mm-hmm. instrument boo tëgg xam nañ cosaanam xam nañ air bi xam nañ Gambie moo tax boo ko doon seet loolu mooy def richesse u musique nag exactement dem au fin fond exactement léegi léegi li xew. Ah, mooy nopp yooyu yàqu ñëpp ambiance rek. Ah, ah, waaw ambiance rek ambiance ambiance. <laughs> bu noppi yàqoo. Uh-huh. léegi nag nit ñi tàmm ambiance. Mhm. parce que tey jii booy xool ex bu ñu nee euh, musique euh, nigérienne yi seen musique yi ni fi mu toll ak ghanéen mhm. ñoom seen base bi ak source bi biit yooyu ngay dégg seen. tradition la ñu jël génne ko léegi américain sax ñëpp moom la ñu déglu kon loolu dafa am solo waa xale yi liggéeyatuñu xaw ma musique de c'est vrai de mais euh, li lay won ni xale yi par rapport ak mag yi damay wax quatre titres rek yoo xamante ne euh, ba muy bañ koy way peut-être juddoogu woon mais titres yooyu dafa nekk loo xam ne dafa manqué marki nit ci ba tey soo xoolee euh, ajaratu xaar mbay ma jaaga boo xoolee lu mu woyoon célibataire wax benn tubay ñeent fukki waxambaane ñëpp bokk nga jël ma joojo ñing wajo ma joojo ñing location xoolal générique ñi nga xam ne dañuy def affaire habitat yooyu yëpp dañuy jël comme générique voilà nga gis ki sëy ba tey jii nii yaa yaa ngi koy dégg nga xool euh, jaal mbaay set setal Ah, xoolal carte yi ba tey jii dafa nekk loo xamante ne dañ koy teg yàgg na bañ ko woyeeg léegi te du changé et puis seen parole yi seen parole yi soo koy déglu sax da ngay xam ni ñii mhm. dañ doon dégg dañ doon dañ doon gëstu di bind mais léegi dangay gis benn texte boo xamante ne du am sax ay quatre couplets ah. woy bi jeex kenn ku ko loolu. parce que surtout ñu xam ba néew fa. ah mais tamit euh, ku ko wax. vendre léegi xam nga xam nga xam nga démb. mais baaxul si xale yi leen xale yi. Mhm. amu mag ñi dañ leen a defaral ba pare. loo gis base la. waaye nag euh, ex. Euh, démb neexoon na lool ah li waral ñu ah naan démb waral ñu naan tey démb neexoon nag ndakaaru demb laa lay woon ex xoolal ndakaaru démb ni meloon Ndakaaru nee na Parante ñaan Ndakaaru. Ndakaaru ba ah, day dox nag Ndakaaru Ndakaaru xat na nag fi ne ak si ute na ak lii de ah. ah Ndakaaru xat na. bu njëkk doon sedd ba seen bakkan di corniche la. ah waaw ah, baax na mi ngi nii corniche eh, nga corniche. corniche waaw université lii rek xam nga ne yii koko nga fa ba tey. moom la xale yi di wax beeyu. waaw wuyul lii. boo wàccoon ni corniche baa ngi ifan. day sànni xoolal rek. jël garab kooku bi mu nekk bi am na seen wàllu Dakar ah waaw bii rek yow tam ay satu. mënul xeet oto yi boo demee fi mu toll nii ma nga musée. ndax bii 504 la bii ni bu ñu. ay ay waaw 504. clando R4 la. R4 la non est-ce que yaa yi noonu université baa ngi nii ndeysaan. oui on est nostalgique mais a eu de l'espace. sauf qu'on a mal construit. Mm-hmm. waaw ni ñu tabaxee la. mais je pense que dañu dañ ko war a adapté waat réadapté ko ak ak ak bu bees bi. Mm. citoyen mbott. Citroën la mbott mais am na beneen oto mentalaton xamoo ko xale xamuñu ko de xamuñu ko oto mentalaton mooy bu ndaw bi rek moom doy <laughs> mooy coccinelle ma nga ah bon oto mentalaton la ay sotu fay ñaata at nga am yéen ay xale ngeen xam nga lu tax ñu defoon coccinelle ndax bu duggoon bu duggee ci ndox day mhm. la seule voiture bi flotté <coughs> Dakaaru neexoon na Dakaaru neexoon na waaye jamonoy Seras jamonoy Sotiba déggal li ak Bata maalo seppa dallu bata bata bàjjo bi waaw bàjjo ay bata waay eh moo tax ma ne la démb neexoon na waaye ndakaaru tey it neex na ah. ex ndakaaru tey lépp technologie la lépp avancement la nag dofloo mag diir loo gone nga ne day dofloo mag diir loo gone waaw ci naka mag munta banque te jamono yi ñu toll ni mag bu fi banque dof xale dafay téye jamono te jamono bii ma gis xale bu ko téeree. waaw ma ne Ndakaaru Ndakaaru Ndakaaru neexoo neex na neex na neex na rawatina nag ci weekend bi weekend bi ah. ak ah, Cissé la fa xew. Ah. ah ki nga xam ne saabu ñëwee rek mu mel ne mooy loolu macha allah du ngeen ci wax. ay <laughs> satu toj ko ma nga fa woon. waaw euh, ak ñun ñii ñëpp. aji naa aji naa oh, <laughs> ba pare kaay ma wax la xam nga lu ci neex keroog mooy wayu démb yi dañu indiwaat daal. mais da ko mooñaat delloo. waaw dañ ko delloowaat wayu démb yi démb dem dem. dem fan dem ndax lan dem mais kan moo fa doon par exemple kan moo fa doon fecc jaabira ah. Mado ah Mado jaabira nga fa may. <laughs> eh Pape Samba la <laughs> ay waay ndekkite sama doom ji foowul. Mado da nga doon jaabira. Pape Samba la moom ndekkite dafa coincé kii machine rek la xam. ak réalisation ah daf la koo jiiñ daal. daf ma ko jiiñ. non non mais man gis naa la ngay fecc jaabira yow bi ah Madone nag bul bañ jaabira bi yow fekk ah. ni ah. waa jëlal jëlal mi ngi nii. nit ñi dañu génn massivement dafa feesoon dell. te pourtant ñi ngi naan xam nga fi dëkk bi toll ak. ak lion yi toog ak yooyu yëpp jafe-jafe yi mais bañ ko gisee ñëpp a tiit. Youssou daf leen remercier. oui mhm. vous êtes venu vous wax na ko wax ñaari yoon. wallaay ndeysaan bi mu koy wax dafa taxaw ak ñoom jàkkaarloo ak ñoom ci wax leen ko. moom day communiquer ak public bi. parce amul dara lu muy def ci àdduna lu mu jiitulul public am Youssou lu muy def bu ci mm-hmm. Sénégal yi gisul boppam daana la ko teg ko ci suuf donc lii bi muy génn ñu bëri nga doon Sénégal yi naan ba annulé annulé annulé ndax bu doon sax ñaari nit la dana ñëw taxaw way mais dafa ñëw nit ñi ah, ñëw vraiment non bi démb wees naa bi jibee ne moom ëpp na moom ah, dafa daw yaram ah, xaaral ma may leen ci extrait te balaa mu doon commencé nag léegi nañ way dégg ñu dégg leen ko ñu dama bëgg. way dafa baax docteur a ko wax. Aïcha na way. Afrique. na samedi nag man am na lenn benn remarque bu ma def nag euh, Cissé ay xale yu jigéen na fa nekkoon yoo xam ne tubaarkàlla daal waaw ñi man sama xarit yi seetaan nekk à l'état dañ may woo ne ma Sénégal jar naa ñëw nag. ah xale ah, yi de comme boo moo Dubaay nañ koy wax. <laughs> ah te nag li ma jaaxal bu Youssou Ndour ba Youssou Ndour rek la xale yi di génn nag yenn xeetu xale yi daal seetlu ngeen loolu ba pare nag jigéen ñaa fa ëppoon. dafa mel xeetu xale yi. ah baax na damaa defoon ne man rek maa ko seetlu. man ne leen mais macha allah xale yi xale yi jekk nañu rafet nañu et puis génn ñëw ñoom ñëpp sañse. waaw baal ah baal xale yi baal nañ de. ah nu mu ñëwee ci soirée bi. man damay fecc fecc na waaw fecc naa moom. Ndiaye arrêté la naa macha allah. ah ko maquillé. macha allah ñu ngi wax ci wax waxu coulisse de waxu suuf ñu bañ koo fësal rek <laughs> wala ñu fësal. déet nañ bañ a fësal rek. non et puis li amoon li amoon dafa li amoon aussi tamit. Mhm. c'est bon que ñu préciser ko. Mhm. mooy nit ñi commencé nañ comprendre concept grand bal. Mhm. Euh, mooy léegi nit ñi dañuy ñëw léegi. pour fecc baal si. donc dañuy solu en conséquence. day feeñ ci solu beeg ci lépp da ngay def sa jean wala combinaison wala yu baax. macha allah maquillé wu ñëw taxaw baal. baal la daal baal populaire la gars yi di baal. ba dernier morceau bi. fecc baal moo leen fa indi. ay satu mi baal ko fay yóbboon. <laughs> Eh, eh, bu njëkk yi xanaa yow bii nga dem waaw. yow en tout cas soirée bu exceptionnelle la woon. ah, ah ñi dem eh, neex le nañu waaye ñi toog seetaan ko tey FM tamit. seen xol sedd na. ndax itam gis nañ spectacle bu am solo. comme ni ñu ko ko xamee. dañ ko soxla woon xol yi waaw waaw waaw. stress bi métti woon xol bi xol yi sedd tuuti ñu tooyalaat ko. voilà donc les stress yi bégayer et tout ça d'où l'esprit du, du grand bal et ça a été vraiment une belle réussite comme tous les autres grands bals. Mhm. dëgg la mu nekkoon nag week-end bi le 27 moo am Belgique. Hmm. Hmm? le 27 ju le 27 juillet gars yi ña nga Belgique. équipe bi la ñu reconduire équipe bi la ñu reconduire rek. ñu demoon fee ñu demoon fee la ñuy reconduire ba tey moom dégg naa gars yaa nga Belgique moom. Eh, eh, eh, <laughs> dëgg la ba pare tam ci week bi amoon na tamit Pape Samba anniversaire u Fatou Guewel Diouf. ah, ah. naan bi. amoon na anniversaire TFM fa teewoon. Mhm. anniversaire u Fatou Guewel nga xam ne moom itam. voilà euh, euh, ndaanaan la tamit def na def na dóom fam mhm. grand théâtre euh, te loolu tamit waaw defatina mëninam moom waaw Fatou yaayu bu dégg maam ku jë wallaahi waaw ndax dañuy soxla loolu mhm. dañuy soxla parfois ndaanaan génn wax ak askan wi daal di lëluwaat xanaa ex ndax Fatou Guewel Fatou Guewel ay génnam bariwul man dama fier ci nekk ah. sénégalais loolu nit ñi xamul xëy na dañuy gis ne waaye exarix bu bees parce que j'ai dëgg la américain yi dañ téye ci lu ñu moom waaw waaw ku ne na nga téye li nga moom téye ci lu ñu moom waaw fi mu ñun woon jéggaani fi mu toll nii nag dafa mel ne dafa mel ne ex nag fi mu toll nii waxtu wi waxtu wi kii nañ ko eh, pare nañ daal yeewu leen maanaam heure yi ñu joxoon daal daanaka jeex waaw ñu ñu aj kooki dañ ko aj ba suba rek ñu aju ba waaw incha allah aj <laughs> ko léegi ñu bàyyi la nga pëtakal foofu rek tàggatoo <laughs> tour de table écoute ça a été un plaisir donc euh, voilà de partager exactement ce plateau avec euh, tout le monde et les téléspectateurs comme tey moo doon premier jour rentrée bi ah. c'est la rentrée ah. donc voilà demain incha dellu si waat encore euh, pour une nouvelle rubrique encore defe naa Made in Sénégal bi nañu kandi suba. waaw pare. Euh, cee ñàkk nag keks rek tey jii. Ah, waaw ah, waaw man man waaw neex na fi neex na de ah. lool waaw jeex na kon baax na suba ñu daajuwaat beneen. Euh, beneen teel a indi mburu waaw teel a indi mburu. ah teel a indi mburu waaw mburu mee ko sonal tey. mburu lañ ma ferale. <laughs> moo taxit feeñ na Mado. <laughs> <laughs>